mbokku Sénégal ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam biir na ñëpp ci biir senegal ak ci àddina bi que résultat bi nga xam ni commission nationale wax na ko dëppoowul ak li peuple sénégalais bëgg te daj lu nekk taxaw temm pour amal ko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 moo ngi sant peuple sénégalais yëpp ci seen pas-pas ci seen takkute gis nañu taxawaay bi ni mu mate gis nañu li ñëpp daj pour que senegal am ay élection yu jaar yoon wante lii nga xam ni def nañu ko ak jalgati la ak foqar la ak bëgg a jaay doole la loolu nag lu mu jur ci senegal ci wàllu recul démocratique kenn ki rek la ñu war a joxoñ baaraam moom la addina bi yëpp war a joxoñ baaraam ñoo ngi leen di sant bu baax